waa kay jaa ngeen jëf kon waa ëttu sëriñ Saliou ah xéewal gaa ngi noonu rek xéewal gaa ngi noonu di xéewal gure rek te dafa yomb safa saqima nafal alima qaadal qadima ila najaayi ñetti yoon rek nga koy wax ëf ko ci biir kafe gi rek naan te it noonu mu demee xam ngeen lu yéeme la ko toll ni Cheikh Massamba Mbacké mi nga xam ne moom dafa toqoon ak sëriñ Touba lool nekk ak Cheikh Mouhamadul mustafa ñoom ñaar ñu nekk mu koy xellil café bam ko xelle ba seigne Modou mustapha dem bay nan mo ni ko taxawal seigne Modou Moustapha taxaw mu wax ko ñett yoon dan ni shafa saqima nafal alima al qadima ila najai dal di koy tifli ci kasam tifli seigne Modou mustapha jox ko daan ni ko nanal mu daan ni ko ah mbacke li lan la mu ni ko soy nan café safa saqima nafal alima xaadal xadima ila naja yi nga wax ko ñetti yoon ëf ko ci feebar bu mu fekk ci yow dana ko dindi donte feebar bu am ay at la ci yow wala muy feebar boo xam dalay doog a dalay doog a dal bu mu ci mën a dina ko dindi fu mu fekk jàngoro dindi ko sëñ Modou Moussa ko ah Mbakke loolu moom kéemaane na li mu daane ah sa bàyyi ma ko de Cheikh Al Khadim moo ni ma woon bayit bi ku ko wax ñetti yoon ëf ko ci kafe soo ko lu mu fekk ci sa biir dana ko dindi tawat li mu fekk ci yow wala lu mu mën a fekk ci yow dana ko dindi kon nag dara gënu ko doon yërmande Sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf a xam Mouhamadou Lamine Seck Baye Fallou Serigne Saliou